saxal sutura ci suñu kaw ak barke ak teraanga ak ngërmandeem ci zahir ak ci baat yi yàlla may ñu kàttanu sant ko itam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa lépp loo xam ne itam ñu ngi koy def ñu def ko li wajhillaahi tabaaraka wa taala mu bañ a nekk euh, daray àdduna yàlla lépp doon yàlla rek tabaaraka wa yàlla na ci ñëpp jëriñu itam ñu war a àggali tey ci fi ñu yemoon ci darsu bi passé nga xam ne ñu ngi doon wax ci sàkkukatu xam-xam comportement yi mu war a am ak boroom xam-xam ak nit kuy ku ñu ràññee ci diine yaani koo xam ne euh, mun nañ ko tuddee kilifa diine walla jàngalekat ustaaz walla ñu demee noonu daal muy wax ni nit kooku waru toroxal boppam ba koo gis yàpp ko waaye warul jaamu poche nit ñi itam nga xam ne lépp lu muy def rek mu ngi ci seen poche nit ñi loolu bokk na ci lu gën a mën a yàq bokk na sax ci li gën a yàq jamono mooy boroom xam-xam di di ran ci bureau boroom alal yi boroom xam dem di ci bureau boroom alal yi nga xam ne axe bi moo waroon nekk ku nekk dina soxla ku nekk nit ñi dañu soxla wante tey dañ lay soxla subaa nga soxla keneen ginnaaw suba kooku soxla keneen adduna bi noonu lay demee waaye nag na nga xàmmee yow fi nga yem ndax am na lii ñoo xam ne boo ko jéggee rek mooy yaay toroxal sa bopp ba pare toroxol xam-xam wala jéem a toroxal xam-xam wala jéem a yablu xam-xam wala jéem a yablu lislaam waxuñu ni boroom xam-xam du seeti boroom alal de waaye boroom xam-xam na am comportement boo xam ne même bu soxlaa nit du ko jaral jaay ngorom ndax àdduna bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy référence ñëpp mooy jëmmi xam-xam daan soxla ñoo xam ne sax duñu ay jullit masalan di lépp yahudi hmm, di am soxla di ko wax jullit ñi waaye nag taxut kenn yàpp ko ci benn yoon ndax am na ñoo xam ne bu ñu amee soxla àdduna def leen di jaral lu ne ñoom lañ jot lañ bëgg rek waaye yonent bi ne na nit looy sàkku lu ne sàkk ko ci kaw ngor moo tax yenn kàddu yi day jar nga xool ban contexte lañ ko waxee mhm. yàlla na yàlla may dégg ak topp borom téere bi mu ne ustaazam imam bi cheikh bi ruknul islam nga xam ne ñu ko xamee ci adibul rahmatullahi taala alayhi dafa doon wax ci tawaadu modest. modeste wàccee sa bopp nga bañ mu ne inna tawaadu min xisaalil muttaqi tawaado day li ñuy wax tawaado nanga xam ne dafa bokk ci màndargak jikko yi nga xam ne ku ragal yàlla daf koy am modeste dafa bokk ci màndargay ragal yàlla ñi ragal yàlla bokk na ci seen jikko yi leen di ràññee mooy modeste loolu mooy inna tawaadu min xisaalil muttaqi wa bihi te ca te ci tawaadu boobu yartaqi lay yéegee ak taq yu ku ragal yàlla ilal maali ci bërëb yu kawe ci teraanga yu yu yu kawe ak ci maqaama ak ci daraja yu kawe ci modest la ko boroom xam-xam la ko ku ragal yàlla di amee ndax modeste moom yenent bi tënkaloo lañ ko ci xadis sax mu ne mooy mu ne rëy rëy mooy nit ku bañ dëgg ba pare xeeb nit ñi nit nag bu fekkee xeeboo nit ñi te bañoo dëgg rek yow su boobaa lu ñu tuddee rëy euh, jóge na ci yow selon yonent bi sallallahu alayhi waaw ndax ñu bari dañu jàpp rëy daal mooy di sol ay yére yu kii déedéet rëy jikko la du colin mais jikku la dëgg la itam des fois nit dina solo nga xam ne kii rëy moo ko yóbbee mu solo nii waaye yooyu yëpp dafay dellu ci jikko rek mu ne kon inna tawaadu naka modeste min mu muttaqi dafa bokk ci màndarga jikku nit ñu ragal yàlla yi wa bihi te ci modeste boobu noonu yartaqi lay yéegee at taqi yu ki ragal yàlla ilal am ilal maali yi ci bërëb yu kawe ci maqaama yu kawe kon modeste lu am solo la rawatina ci sàkkatu xam-xam ndax bu fekkee ne amuloo xam-xam ba pare nga rëy bàyyi eh, bàyyi dafay wax ni mu ne am na juróom-benn yoo xam ne bu gan see juróom-benn dafay sax yooyu bokk na ci mooy nit ku réer ba pare rëy teel a jàng koo xam ne xamuloo nga ne ak ah, daal moom man su ma jàngalee non day day day day suufe trop ak man yooyu yooyu saxaaba yi amul ñoon problème boobu daal parce que saxaaba yi dangay gis nit ku ñëw di laaj xam-xam koo xam ne jàmm la woon loolu amuñu ci problème jamono ji ñu am problème boobu noo diw man duma jàngal parce que nii maa ko ëpp alal nii parce que maa ko ëpp tur loolu jamono ji la xew mais saxaaba yi moom mosuñu am problème boobu moom ndax ñu bari dañoo ñëw ci abu hurayra di ko laaj ay masala te abu hurayra ñëpp xam nañu fi mu dëkk fu mu nekkoon ahlu sufa la bokkoon amul woon dara te ñee amoon nañ daraja bokk ci saxaaba yu mag a am alal am daraja am famille bokk ko yent bi deret bokk moom wayjur lépp waaye du tey dañu ñëw ci abu hurayra di jàngee seen diine amuñu problème boobu duñ wax ni ci étranger la rek radiallahu anhum ajmain mu ne borom téere bi wa minal ajaibi bokk nag xam nga yu yéeme yu yéeme moom dafa bëri waaye bokk na ci yéeme yooyu yi nga xam ne dafa doy waar lool te te yéeme mooy uj bu man ci yéemu nit ki nga xam dafa maanaam ba minal ajaay bi bokk na ci yéeme yi nga xam ne doy na waar lool uj bu man ci nit ku beew nit ku gis boppam nit ku yéem boppam nit koo xam ne dafa beew dafa rëy te nit kooku rëy huwa moom kooku nga xam ne dafa rëy jaahilun fi xaalihi ku réeree xaalam la ahuwa saidun am shaqiyu ami saqiyu mu ne bokk na ci yéeme yi mooy uj bu nit ku rëy koo xam ne man xuwa kooku rëy nit kooku rëy jaahilun ku réer la fii yi ci mbiram moom ahuwa saidu ndax moom ku texe la ami saqi wala ku texee di la booy nit koo xam ne xamut moom ku texe la xamut ku texee di la safara la jëm xamu ci dara aljanna la jëm xamu ci dara ba pare boole ko bëgg a rëy koo xam ne yow xamuloo ndax daj safara ngay dem safara wala dangay dem aljanna ba pare rëy fan la fi xajee yow koo xam ne xamul dara ci boppam ba pare bëgg a rëy loolu xam nga ne lu doy waar loolu la beneen ajaayib bokk na ci yéeme yi day uj bu man huwa jaahilun ci nit ku beew koo xam ne ku réer la xamul dara ci situation am xamul ahuwa ahuwa saïd ndax moom ci ñu texe ñi la bokk amee saqi wala ku texee di la ba pare kooku bëgg a beew loolu lu yéeme la am kayfa walla nit kooku beew sax xamut de xamut kayfa yuxtamu umruhu aw ruuxuhu yow ma taw euh, yow ma tawaa kooku xamul naka la dundam di mujjee xamul naka la ruuxam di mujjee bisub alkaande ba mooy bis bu muy deewee xamu ko moom xamul ni ndax saf mutasafilun aw murtaqi xamul ndax dañ koy yëkkati ci aljanna yi gën a kawe yi wala dañ koy sànni ci safara yi gën a suufe yi moom xamu ci dara xamul naka lay deewee xamul fan la dundam di mujjee xamul ndax bu deewee aljanna la jëm xamul ndax bu deewee safara la jëm ba pare kooku bëgg a rëy loolu mooy ñàkk xel dëgg balaa ngay tal rëy kay nga tal lijjante yow fooy mujjee yowmal qiyaama di jëf jëf yu rafet bàyyi jëf yu ñàññi moom borom ti borom moom euh, waykat bi ba tey mu ni wal li rabbina sifatun bihi maxsuusatun satun. Ah, ne wal kibriyaau li ñuy tuddee ak rëy li rabbina suñu borom la ñeel de sifatun bihi maxsuusatun loolu melukaan bu yàlla képp képp jagoo la wal kibriyaau rëy li rabbina suñu borom rek la ñeel ndax sifatun bihi melokan la bu ñeel yàlla tabaraka wa taala maxsusatu buñ ko jagleel moom képp nag kenn warut taba kudut yàlla tabaraka wa taala ndax rëy mooy wane ne man ku màgg laa man ku mot laa man nangam dañ naa ci mota di loolu yàlla rek moo ko def rek mooy kii dañ ci mota di waaye rek ku mota di nga soxla nga ñu motaleel ci yenn moo xam ñu mottali la ci wàllu xel di la conseil di la orienté ñu mottali la ci wàllu jikku di yar di la wax defal lii bàyyi lii wala ñu mottali la ci wàllu alal di la may dénga nga di la financé yàlla rek mooy ki xam ne soxlawul kenn nag hmm. moom doylu na walis lépp comme nag alkibriya u rëy yàlla rek moo ko jagoro ah kon fata janna bat fata janna nanga ko moytu wattaka te nga moytu nag nga nga ragal yàlla bu moytu rëy qaala abu xanifata rahmatullahi taala alayhi abu xanifa rahmatullahi taala nga xam ne bokk na ci kenn ci ay immatul arba mooy borom mazahibi dafa doon wax li asxaabihi ñeel àndooro bi mooy taalibe yi doon jàngee ci moom mu ne anzimu amaimakum wa wassiu ak maamakum xam nga jamono bu nekk dafa am ni jamono di doxe te ñu ngi ci buntu bi nga xam ne boroom xam-xam ak sàkkat xam-xam ak nit kuy askanoo ci diine dafa war am comportement ba kenn du ko yàpp jamono bu nekk nag am na nooy def ba kenn du la yàpp su ko defee buñ la respecté sooy wax ci diine ñu mun la déglu booy jëf ci diine ñu mun la roy waaye bu fekkee respecté wuñ la boo waxee duñ la déglu boo jëfee duñ la roy bokkul nag ci seen jamono ñoom mandar gi ñu daan xàmmee nit ku sell ak nit ku nit ku baax wala comportement boo xam ne boo ko amee nit ñi dañ lay respecté Abu Hanifa recommandé ko taalibe mi mu ne moom Abu Hanifa azimu amaamimakum azimu amaamimakum na ngeen di réyal seeni kaala na ngeen di kaalaw ngëndam kaala na ngeen di kaalaw kaala yu rëy rëy rëy waaw kaala yoo xam ne sax daanaka kaala yu rëy daal am na nag ci dëkk yoo xam ne ba léegi boo jàngee ba ñu reconnaître am nga xam-xam rek dañ lay jox benn kaala bu bu gudd nga kaala woo nga xam ne kaala bi dafay rëy lool wala mbaxane bu rëy ñu ne lii mandargay nàngam la Égypte foog naa am na ci côté yoo xam ne ba léegi mu ngi fay am boo dolloo ci benn daraja xam-xam ñu jox la mbaxane mu xonq boo demee ba avance tuuti ñu jël ci ñu ñu ñu lëmas ci morceau bu weex mu nekk xonq ak weex nga dem ba ba amaat beneen niveau ñu simbil la boobu sololaat la beneen am na daal ay mbaxane yoo xam ne suñu xam-xam la ci ñoom abu xanifa mu ne na ngeen réyal seeni kaala wa wasiu ak maamakum te seen loxo mu biir itam na ngeen ko yaatal kuy seetaan film yu njëkk yi da ngay gis ay loxo yu yaatu lañu sol hmm? maanaam dangay ñëw sa yére ba pare waaye nag loxo yi day yaatu hmm? loxo yi day yaatu daal abu fa nag doon ne nangeen ngeen réyal seeni kaala di sol kaala yu mag waaye itam na ngeen yaatal seeni loxo mbubb pour nit ñi mun la respecter waaye nag jamono ji am na ci côté yoo xam ne moom kaala bu rëy foog naa sopp ko foofu daal am na ci dëkk yoo xam ne itam kaala bu rëy dafa nekk seen aada rek wala di kaaloo sax waaye am ma lenn ci ñun ñun ñun ñun kii moom waa Kër Baay ñenn ñi dañu gis ni kaalawu rawatina boo nekkee xale moom jaaduwul daal parce que dafa am looy jéem a wone am na itam ñu ne déedéet kaalawu daal yére rek la comme ni ngay amee sa yére bu rafet sol ko boo gisee ni boo kalawoo dee rafet nga kaalawoo rek mu mu taal yére bi su ko defee mu nekk taaru lislaam alaayati xaal seen jamono daal loolu bokk na ci man rek ñu lay respecté mooy yaatal yaatal loxo yére yére bi loxo yaatu waaye itam nga sol kaala bu rëy. abu hanifa ne loolu wa innama qaala dalika li allah yustahafu bil ilmi wa ahlihi borom téere bi ne bu ngeen defee loolu de maanaam bu ngeen defee li abu hanifa wax dafay nekk dafay nekk dafay nekk sabab boo xam ne duñu suufeel xam-xam duñ xeeb xam-xam te duñ xeeb waa xam-xam parce que bu ñu xam-xam rek xébalé wa xam-xam buñ xébé wa xam-xam rek xébalé xam-xam mune ne baghi li taalibil ilmi borom téré bi mune ne baghi yanbaghi yi day yell na ci li talibil ilmi neel sakatu sàkkatu xam-xam bi an yuhassila kitaabal wasiya allati katabaha abu hanifa rahmatullahi taala alayhi li yunus ibn khalid as samti rahmatullahi taala alayhi inda rujui ila ahlihi moom borom téere bi mu ne wa yanbaghi li taalibil ilmi wot na ci nit kuy sàkku xam-xam ku ne an ci xasila kitaabal wasiya mu goreel yaani gànnaayoo gànnaayoo nag buñ ko waxee ci téere mooy nga jàng ko ba pare dégg téere bi téere boobu ban téere la téere la boo xam ne Abu Xanifa def ko dénkoon téere wasiya la téere dénkaane katabaha abu yun katabaha abu xanifata rahmatullahi taala ale abu xanifa bind téere boobu li yunusa ibnu xaalid ngir benn taalibeem boo xam ne yunus la tuddoon abu xanifa dafa bindoon benn téere di ci dénk benn taalibeem bu ñuy wax yunus ibnu xaalid asamti di ko ci dénk dénk yi am solo borom téere bi nag ne wa yan bari li taalibil ilmi yell na ci sàkkatu xam-xam bi an yu xasula kitaaba mu gorel di gànnaayoo jàng dégg daal lañ ci jublu alwas kitaab alwasiya téere bi nga xam ne téere abu xanifa moo ko dénkoon wala kitaab alwasiya téere wasiya bi nga xam ne allati bi nga xam ne katabaha bindoon na ko abu xanifa abu xanifa rahmatullahi taala alayhi kan la ko bindloon li yunus ibnu xaalid asamti taalibeem bu ñuy wax yunus ibnu xaalid asamti rahmatullahi taala alayhi inda rujui ila ahlihi ci jamono yi muy waaja a dellu dëkkam bi taalibe bi di waaja dellu ci dëkkam Abu Xanifa daf ko bind loon ay dénkaane jox ko mu yóbbaale boroom téere bi nag ne nit ku nekk war na gànnaar téere boobu la téere boobu amaan na jamono jooy jomb na waaye jamono ji peut-être mun na nekk ci biir téere yi nga xam ne mun nañ ko boole ci téere yi nga xam ne ci mazhabu Abu Xanifa lay wax wala ci ay xikam yi nga xam ne Abu Xanifa dajale nañ ko ay téere yi nga xam ne Abu Xanifa moo ci wax wax yu am solo amaana dénkaan yooyu nekk ci biir téer yooyu borom téere bi nag yajiduhu man talabahu képp ku téere boobu rek di nga ko am yaa ni seen jamono jooju ndax am na téere yu bari yoo xam ne jamono ji amutut raaf na yenn yi jëmmi téere bi ci boppam amutut yenn yi foog nga dem ci maxtutaat maanaam ci bibliothèque yi nga xam ne maxtu maxtutaat foofu lay nekk mooy cosaanu téere yi xam nga téere yi dañu bind benn téere après nit ñi di ko bindaat di ko bindaat bu mu ci jamono yi ñu koy mool bu mu bëri waaye toujours rek am na téer am na téere boo xam ne moom la boroom téere bi ci boppam bind loolu la ñu am xasutaat mooy cosaanu téere bi boroom téere bii nag di burxaanu diin burxaanul islaam borom taalim mu taalim mu ne yajiduhu man talabahu képp ku sàkku téere abu xanifa boobu rek di nga ko am képp ku ut di ko am peut seen jamono dafa yomboon waaye jamono jii moom daanaka doo kaana ustazuna cheikhul islam burhanul aimma mu ne nekkoon na suñu sëriñ suñu cheikh cheikhul islaam burhanul aimma nga xam ne mooy layuk imma yi aliin ibnu abi bakrin aliin doomi abu bakrin xaddasallahu ruuxu yàlla na yàlla sellal ruuxam al aziz amarana amarani digal na ma bi kitaabi yi ma bind ko indar rujuu yi baladi Mm, wa katabtuhu digaloon na ma ma daal di bind téere boobu man sama bopp mu ne la nag wala budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalati annaasi minhu ndax téere boobu kat nag képp koo xam ne mufti la mooy kuy ubbee ci diine ñu lay laaj ay masala ngay tontu ak képp koo xam ne itam jàngalekat na war nga am téere boobu di sukkandiku ci téere boobu wax Abu Xanifa bindoon comme li ma sànk rek amaan téer yooyu amoon na ci jamono jooju waaye jamono ji moom daanaka mën koo gis faslun fi ixtiyaaril ilmi wal ustaaz wa sharik wa sabat bunt buy jàngale ci nit buy jàng tànn gi mu war a tànn ki koy jàngal ak tànn gi mu war a tànn matière bi muy jàng maanaam ban matière lay jiital ak tànn bi mu war a tànn kan lay àndal camarade de classe koo xam ne moom lay fréquenté moom lay àndat école buñ génnee pause moom lay fréquenté nit ki muy fréquenté daal wa sabaat ak itam sax gi muy sax ci njàng googu foog naa mun nañu yem fii insha allah rabbi bu ñëwaatee euh, jël bunt boobu bismillahi tabaraka wa taala euh, mbokk mi gannaaw bi nga vidéo ba pare ñu lay ñaan nga ñu bind jëm chaîne bi ñu bind s'abonner après nga activer cloche bii nii nga tamit wax xalaat yii nii si commentaire yi lii nag ci fay dara te dina tax buñ dugalati jot